asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi fi teew kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa sa sant di leen fas yéene jottali kilifa yi nga xam ne ñoo ngi teew te ñuy wax ci seen digal ki ci jiitu ci xalif général bi ci kanam sëriñ Abdourahman dina ñëw pour wax li nga xam ni moom la ko sëriñ bi waxloo te mu jëm ci askan bi ak tariqa bi ak diine ji ñi nga xam ne ñoo fi teew. ki nga xamante ni moo ci jiitu mooy cheikhul bekkaay mul haaji Mouhamed Kunta mu ngi fi toog ak suñu wayjuur cheikh Mouhamed Mahfouz jógee ndànk ñëw teewal fi mu taan waa ndànk yépp cheikh Mouhamed Kunta jukkoon koo xam ci xamu muy borom dëkk bi mu ngi fii toog mun naa ni teewal fi waa Njaasaan yépp alhaaji Mambu Kunta ñu gën koo xam ci Mambu bale mu ngi fii toog di rak ci sëriñ bi Haydara ñoo naan ak Moustapha Haydara toogal fi waa Guyette yëpp imam Mouhamed Kunta ñoo na jóge sanc ci ndigalu Cheikh bu Mouhamed Kunta toogal fi waa sanc yëpp suñu wayjuur suñu baay alhamam bu Abdoulatif mu ngi fi teew di rakk ci sëriñ bi li ci ay rakk lañu ak i doom ak i sët ñoom yëpp bokk ci askanu Kunta li nga xam ni nag moo war teewaay bi su seen papa bu ñëwee dina ko wax kii nga xam ne moo doon jàngal quran bi mooy Cheikh Sidi Yahya dëkk ci dëkk bi ñëw teew fi magam alhaaji Sidi Maxtaar Kunta imam raatibu dëkk bi di Sidi Amar mu ngi fi moom mun naa wax ne bu teewee rek teewal na Njaasaan gépp ndax moom la sëriñ bi doyloo teg ko ci kanamu askan bi mu ni jiite ci diine li nga xam si ne mooy woote bi su papa du ñëwee incha allah dina ko jottali ñu xam ne lii ay kàddu la rek pour ma présenter ñi nga xam ne ñoo fi toogoon ci ay kilifa am na ay fi toog sëriñ bi nag am na ay muqaddam yu fi nekk yoo xamante ni teew na ci jotaay bi ngi taatan kàddu yi pour yóbbal ko jotal ko taalibe yi ka ci mag mooy Sidi Cissé euh, ak Wiye Cissé Wiye Samake ñu ngi fi alhamdulilah ak ak Baye Sidi Bamba ñoom yëpp ñu ngi fi. pour taatan kàddu yi suñu delloo ci taalibe yi incha allah di leen ko jottali. seen tànk yi ngeen fi ñëwee. nee na tànk yi ngeen fi ñëwee itam. yàlla ngeen ko na ngeen ko dox ci àjjana. yàlla mën na ko. nee na yàlla mën na ko. yàlla na ko def. yàlla ko yàlla def. wax ci du sori. nee na wax ji du sori. maa ngi bàyyi ak sama bi mu wax ak yéen. nee na mi ngi bàyyi jarbaatam bi mu wax ak yéen. papa papa Abdou. papa Abdou. waaye li ma li ma bëgg a wax ji wax waxoon naa ko dinañ ko wax. neena na li mu bëggoon a wax yépp waxoon na ma ko dana ko wax bokk yi ginnaaw bi sëriñ bi nuyoo ba noppi kàddu yi mu bëgg a wax ak njaboot gi mu dénk ma ko bi ci jëkk mooy jaale boppam jaale njabootu askan wi ak njabootu taalibe gi ak réew mi ci doom ju baax joo xam ne làqu na barki démb muy Cheikh Boun Ama Kunta mu di ko ñaanal yàlla ak baayam ya ko jiitu ak jullit ya ko jiitu ci biir suuf yàlla yërëm leen dotti ci ñoom xiwalu njëgal mu di leen ziyaare itam ci bésu ajjuma bi nga xam ni bés bu yàlla barkeel la bu mu kaweel la wax ji nga xam ne itam moom la ma dénk pour ma wax ko lépp dafay delluwaat ci yëg-yëg boo xam ne yàlla nattoo na ko ko ñi fi te yàlla dogaloon ñu yore xilaafa gi bari na mësul séentu mukk ni moom mii yàlla dina ko wommat tey ba mu toog ci boppu njaboot gi waaye yàlla ci naminam ak ràbbinam moo ko wommat ba mu ñëw wuutu fi magam di alxaaji maam bu Mohamed Kunta ba mu toogee itam ci njàlbeen xamal na bokk yépp ak réew mi ne lépp loo xam ne magam jooju rëddoon na ko ci taalibe yi ak ci bokk gi di ko doxal ngir askan week tariqa bi ak diine ji loolee da koy feddli waaye dindiwu ci dara muy wax rek li nga xam ne moom la Seydina Aboubacar Saddiq waxoon keroog ba nga xamee ni mbir mi wàcc na ci kawam mu wutu fa yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ni qad wullitu aleykum walastu walastu bi xayrikum man dey yàlla nattoo na ma ni maa toog ci boppi njaboot gi waaye du ngëne la tax du lu ma leen gëne mbaa lu ma leen mane ci wàllu xam-xam walla alal walla leneen mu waxoon itam moom seydna abubakar saddiq ne leen atiiwu nii ma ataatu llaha wa rasulahu nga na ngeen ma dimbale yéen njaboot gi fii maa ngi topp yàlla ak yonentam topp leen ma wa in asaytu fa qawwimuuni bés boo xamee ni itam jàdd naa man Aboubacar Saddiq yéen njaboot gi na ngeen ma jubbanti tegaat ma ci yoon wax joojee itam moom lay dénkaat njaboot gi njaboot gi it xam ni kunte ci biir Sénégal day ak ci àddina bi li nga xam ni moom la fi maam yi bàyyi woon ba léegi di ay ndono mu nekk ay valeur yoo xam ne àddina bi yëpp xam nañ ko moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew la te ndono yëpp nag valeur yi mu ëmb muy ràbb di defar di tàggat doomu aadama ba loolee nga xam ni yàlla dénk na ko ko ci loolu ñu tudde xilaafa ci kaw suuf doomu aadama ji man koo yor moom lay ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla yenkawal ko ndimbalam yenkawal ko njaboot gi nga xam ni ñoo koy jàppale itam ba ndono yooyu mu sàmm ko sàmmin wa nga xam ni noonu la ko mag ñi sàmme woon muy wax rekk ni askan wi ko yàlla nattoo mu bokk ci tey yilif ko te lépp ëmb juróomi dëkki kunti yu mu di leen xamal rekk ni di xamal boppam itam ni askanu Cheikh Bounama dey benn bopp la kenn du ko xar bokk gi benn la ndax benn maam lañu la ñu am muy Cheikh Bounama Kunta képp koo xam ni tey sant nga fi Kunta yi ci biir senegal su fekkee bokkoo ci beneen xeetu naar boo xam ni bokkul ak xeetu cheikh bu na waaye ci xeetu cheikh bu na nga bokk te moom la tuddee alhaamil kunta gi benn la ñoo ñooñee ci bokkul it benn lañu kon kunta ci jamono cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ba ñetti doom yi mu am ñu bokk ndey ak baay jàppoo alxaaj Boubacar wëlbatiku dox li mu dox ba mel cheikh bu na ama kunta mu ñëw fi ci 1800 nekk fi bàyyi fa ay doom yoo xam ne ñoo ko donn ba doom ji nga xam ni moom la yàlla mu jël ci ay doomam mu Cheikh Abou Mouhamed Kunta yàlla may ko teraanga ji mu ko may ti fii mu sanc dëkk bii di Njaasaan xilaafal qaadiriya yàlla teg ko ci loxoom tey ci réew mi ak ci bitim réew yàlla natt ko mu toog ci ëmbaale kunte yi amul dara loo xam ni dana ko wax njaboot gi lu dul nañu jàppoo nekk benn di jógandoo di toogandoo mi ngi leen di sant itam ni ki gën ci yàlla de mooy kiy wanaasu meram di jéggale ay njuumte loolu lay dënk njaboot gi naam jalt jaltu du ñàkk ci biir njaboot waaye nga lawaay yu fu mu mën a toll ci àddina bu ngëneel taxawee fële ma ngay xëccu pour yegg ci ngëneel loolu te ngëneel loolu dafa tënku ci ñett ci ñetti baat yoo xam ne yàlla wax na ko ci alquran walkaadimiina alxayda walcaafina an innaasi wallahu yuhibbul muhsinin ñi nga xam ne bu ñu meree doo xool doo xool seen kanam ba xam ko bu ñu meree it ka merloo dañ koy jéggal ka merloo duñ ko jëggal yam ci waaye dañuy dind lu tooyal xalam jox ko ko ngir yàlla nee na loolu ci lay ñax boppam di ko ñax askan wi yépp nag di tàllal loxoom askan wi ñépp nekk benn ñu jéggalante baalante xaq ànd ngir sàmb diine ji sàmm ndondol yi sàmm tariqa bi ba fi nga xam ni foofa la maam yi yéene woon tariqa bi yàgg fa ci biir réew mi ak ci bitim réew yàlla defal ko ko defal ñu ko ñun ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax na it ci biir ni njaboot gi ko yàlla dénk te mooy njabootu kuntu ak fu ñu mën a nekk ci àddina soxla bu ci nit am bu fekkee kàddoom moo koy faj dana wax ba mu faju su fekkee jëfam moo koy faj dana jëf ba mu faju wax na it ci biir ni moom day takk na buum ci baatam jébbal ko njaboot gi fu ñu ko watat jëme foofa la jëm kon tëdd na ñareet jox gannaawam njaboot gi ñoom ñoo ko moom lu ñu bëgg ci moom feeg diine gërëm na loolu ak ngor ak valeuru askan wi fekk na leen ci lépp loo xam ne itam waaye am na ko mu doon loo xam ne mi ngi ci xolam te bu ko xamee man ca dara moo xam bànneex la moo xam naqar la ci njabootu kunta geeg njabootu taalibe yi nee na kooka day soo ko xamalu loolu tooñ nga ko ba ci kanamu yàlla loolu moo nekkoon kàddu yu néew yoo xam ne sëriñ bi doon na ko tàbbal ci euh, noppi njaboot gi di gërëm nag ay rakkam rakkam yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam ki ci jëkk di Cheikh al Bekaay doomi alxaaji Muhammad Mambu mu sëñ si di Bàlle Muhammad Mahfouz mi toog ci wetam di boroom dëkku ndànk sëriñ Xamb muy boroom dëkku Njaasaan mu dénku ko kàddu Njaasaan sëriñ Muhammad Baydaan ma la nga xam ne tey mooy imaamu raatibu sanc buuna wuutu fi boroom dëkk bi mu yónni ko boole koog doomam ak kilifa ak ak sunu bokki guyat yi nga xam ni xuya ak sëriñ Moustapha Cheikh al Bekaay Chérif yabal na leen ñooñu ñëpp bokk ci biir njaboot gi sëriñ bi nee na yéen ak ñi ngeen ëmb te bàyyi leen fa mu ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ Mambu Abdou Latif ak sëriñ Mamadou mu sëriñ Abdou Latif di ay rakk ak Cheikh Ahmadou Bamba mu sëriñ Sidi Yaxya di rakk ci moom ñi ci des ay doom lañu di ay jarbaat Cheikh Sidi Yaxya mi doon jàng alquran léegi gis nañ ko xam nañ ko di teewal fi njabootu baay bu ci kàddu alxaaji Sidi Moxtaar Kunta parce que ñëpp ñëpp ñëpp ñoo bokk kër gi ñoo bokk ëtt bi ñoo bokk deret ji kon ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla doomam ji nga xam ni moo ko fi nekkal nekkoon fi démb ba mu mën a toog Cees ba moom mii di doomam mën ko taxawul magam ba lépp lu magam soxla mu taxaw ci muy sëriñ Mohamed Kunta ñu gën koo xam ci Mohamed Alaaji Maam bu moom itam sëriñ bi nee na mi ngi koy gërëm waaye nee na bu mu la digg gis nag waaw kon njabootug taalibe gi di waa kër sëriñ bu Sidi Maxtaar waa kër sëriñ bu Bekkaay waa kër sëriñ Moxtaar sëriñ sëriñ Baaba Kunta taalibe yu mag yi Sidi Cissé euh, Sidi Bamba Sidi bàmba ak taalibe yi ñu ëmb ndax boo dee boo dee lim di nga juum waa kër Bekkaay sama kay ñëpp ñu ngi fi alhamdulilahi rabbil alamin imaamu ratib bi nag lay mujjee muy Sidi Omar moo ko nekkal ci diine ji nekkal ko ci jàkka ji nekkal ko ci jumaay ji tey bu dul woon moom moom mi mooy jóg lépp lu diine soxla moo fay taxaw waaye ngir yàlla ak taxawaayam bu rafet mooy mu ngi koy ñaanal yàlla di ko gërëm bu baax doomam ji nga xam ne it moo toog ci sama wet te te micro yii di daw ci ndigalam guddi ak bëccëg lu mu bëgg mi ngi ci ñàkk ci ay nelawam ak coonoom ak alalam ak yépp moom mi ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko sutura ñi ci des nag di sunuy rakk ñoom ñu ngi fi duma leen jekki di lim ndax bu ma limee damay juum fa tabarakallahu ma sha allah bilaal yi nga xam ne ñoo nekk ci jàkk ji daaray kaamil yi nga xam ne ñoo yore kaamil bi te ajuma ju jot fa tabarakallahu ñu daje dégg nga jàng fi ay kaamil wàcce ko fi ngir yàlla def fi jàmm def ko ci réew mi ñoom itam mi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dolli leen barke defal leen xiiwal réew mii nga xam ni mooy senegal ñu bokk ko te kenn mënu ko baal sa morom te mënuñu ko séddoo subhaanahu wa taala yàlla gën a dotti jàmm ci réew mi ak xiiwal ñi fi yàlla teg te nga xam ne ñoo yore réew mi di makki Sall ak ña koy jàppale yàlla moo leen tànn teg leen ci boppi njaboot gi sëriñ bi nee na lépp loo xam ni njariñal askan wi la tey dooleel diine ji sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla na ci yàlla dimbale boroom réew mi dimbale ña koy jàppale ba loolee ñu yeggale ko fi nga xam ni foofu la foofu la ñu bëgg loolu mooy kàddu yu néew yoo xam ni waroon naa ko jottalil sëriñ bi xanaa di balu ñëpp xaq di xam ni kàddu dafa diis ki la ko jox te xamoo xelam fu mu toll doo ko doo ko mën a wax boo koy wax itam di nga tiit ci wax ji waaye rek ngeen bàyyi xel ci ni li mu ëmb ak li nekk ci xelam ak li mu bëggoon a wax moo gën a rafet moo ëpp doole sama kàddu weeru waa ngi ñëw mu ngi ñax nit ñi ci weeru koor gi nañu góor góorgóorlu ñun ñëpp ñu màng suñu bopp wut yiw wi nga xam ne moom la yàlla dëxañ ci weeru koor te ñu bàyyi xel itam ci naafile yi nga xam ne day am fii ci jàkka ji te imaamu raati bi du ko jiite ndax naafile dafa am solo li muy indi ci yow bari bari na lool li ci des mooy presse bi di ay doomam mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla def leen ay mag dafa leen ay promotion la ñuy am yàlla na ko yàlla barkeel fi ñu bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yeggale ñoom ak ñi leen yilif nag ñépp nag alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amiin ñaan sa borom képp ku fi ñëw tànk ngi fi ñëwee yàlla ko dox ci àjjana na ko yàlla ko yàlla def jaayir sa sa sa ku ci soxla te soxla soo xam si eh, njëriñ lay jël yi yàlla ko yàlla